moy ne cercle mom moom gëna yar opposition bi mu ngi gëna mu ngi gëna mu ngi gëna ndaw ñom nak ñu war a seen bop xol ban taxawaay la ñam pour jéem a situation bop ñu nek mais président Macky Sall du mom moy dem di jéem do la laat opposition bi di lay yëkkati sous prétexte que dafa war a am équilibre entre opposition pouvoir non nga élection yi di ñëw bu mëne am 90% dañ koy def te loolu du wàññi dara si. te ragaloo boo leen demee sax cent yooyu ngeen dem ba ay pour cent fu mu nekk nii parce que. dem vingt-huit pour cent yow yaay wax léegi ne ne opposition bi existé tul kay opposition bu existé tul naka la naka la mën a amee. population mën nañ leen mere. waaw mais yaa ngi population bi bu ñu leen meree opposition bu ñu leen meree opposition population bi moom bu la meree opposition bi day am doole. comme population comme opposition bi amul doole ça veut dire que population bi merewuñu taw hmm. ku gis tamit vraiment ku gis li xew ci dëkk bi li nga xamné population bi en majorité merewuñ président au contraire ñu ngi koy accompagner bu baax di kontaan bu baax si hmm. activités yi muy jël ci li muy def euh, tay ji rek bo xolé ci journaux yi Euh, action yi ñu defoon euh, si wàllu euh, Covid bi. Hmm. si apprécié à plus de quatre vingt treize pour cent par les population loolu loolu ak seen i experts. waaw jékki-jékki oui defal ñu benn bilan defal ñu benn a nekk yéen a nekk agence yi yéen a nekk programme am nga am nga am ay chiffres yu mel noonu benn benn benn góor daf ne ma. Hmm. yenn saa nit ñi bu génnee chiffre bu bu favorable si pouvoir bi rek. ñu ut ko taxal te pourtant kuñ fi presse boobu noonu di génn chiffre yooyu kuñ fi euh, tàgge woon sa mbokk ko yenn say daal yaa ngi hmm. donc pourtant c'est la même presse c'est les mêmes journalistes euh, information la ñuy am rek répercuté ko comme yéen ngeen koy defee comme ni ko ñeneen di defee donc bu ñu wóorantoo rek hmm. yaa ngi dégg wóorante et ñu xam ne euh, agence bi ko génn mooy ANSD googu yenn saa yi mooy wax ne euh, pauvreté am na tel département ngeen génn ko mooy wax yenn saa yi ne agriculture bi fañ ko bëggoon a yóbbu àggu fa ngeen génn ko mais bu waxee ne agriculture bi euh, actuellement ñu ngi ci plus de trois millions de de tonnes de céréales. mais tamit war ngeen ko mën a gëm. est-ce que réalité bi la wax sur le terrain est-ce que. loolu la mais ñoom parce que ñoom ñoom directeur c'est bien de donner des chiffres mais donner des chiffres yoo xamante ne y a un impact par rapport à la. la man de man de dëkk dëkk bi ma gën a maitrise muy Mbour. maa ay vidéo yoo xam ne askan wi ñu bëri bi demee jëli aide alimentaire bi témoignage ak ñaan yi ñaanal président Macky Sall képp ku nekk Sénégal fii. Hmm. bëggoon ga euh, nit si làmmiñam ñaanal la ñaan yu mel noonu. ndax hmm. mbetteel mu mu neex bi ñu am. Hmm. si bi ñu demee jëli aide boobu noonu. ak yeneen ak yeneen ak yeneen euh, man. Mm. actuellement si semaine bi lu bëri mbuur laay yeewu ñëw liggéey si Dakar ñibbisiwaat de ñibbiwaat mbuur amoon na temps. Mm. amoon na temps jéggi siraat lañ doon wax Dakar mbuur jéggi siraat. di mm-hmm. fajee au moins trois heures de temps pour ak si biir Dakar. kenn xalaatul woon boobu. Mm-hmm. di dem fanaan mbuur xëy liggéey si jiitu fi ñuy jógee ay géej waaye képp kii nag yi demee noonu. boo liggéeyee fii heure bu la neexee boo tëjee si bureau nga delluwaat mbuur yooyu yëpp c'est réalisation yoo xam ne population bi mhm. ñu ngi koy gis di ko sentir di ba pare di si am mbégte mu rëy mhm. ak yeneen yi boo demee si pêche yi pêcheurs yi ñu xam ne tamit so bokkale ah Mbour waaw mu ko ñoom <laughs> mosul am un programme mhm. dédié à la pêche artisanale d'accord léegi gis nga booy jënd moteur même moteur un million trois cent dañ lay jox subvention un million. d'accord ak yeneen ak yeneen c'est-à-dire population bi ñoo gis exactement li leen président Macky Sall defal ñu ànd ceeg moom. d'accord temps bi moo ñuy xaw a xoj. ñu hmm. dese ñaari point ñu aborder ko. alors mooy financement parti politique yi directeur. gis nga tout récemment mooy euh, campagne de collecte de fonds bi nga xam ne PASTEF organisé woon na ko gis nga fu mu mujjee coow la encore sur la place publique ñu dem ba sax ministre de l' intérieur génn di di xupp waa PASTEF. Hmm. naan leen boo leen mooy dañ leen di di suud financement parti politique juriste nga euh, magistrat nga laa bëgg a wax. Euh, nan nga jàngatee loi bi nga xamante ni moom moo ëmb globalement financement parti politique parce que gis nañ ñu jàpp ne loi boobu dafa obsolète waratuñ koo appliquer. Euh, xam nga loi nag moom loo bi comme mu ngi fi. Hmm. te moo régir parti politique yi nañ jàpp ne loi bi moo fi nekk rek léegi nag si dialogue politique yi am ak si waxtaan yi am. Hmm. bu àggee ci ñu modifier loi bi bis buñ ko modifier disposition yu bees yooyu ku nekk tamit tënk si mais pour le moment. Hmm. loo bi nga xam ne ni moom moo fi nekk moom moo fi nekk. li nga xam ne li nga xam ne li nga xam ne moom laa siy dolli mooy. dañoo euh, nekk ci Sénégal man nekkoon un chef de division affaires politiques et syndicales au ministère de l'intérieur. Hmm. parti politique est yu C'est une reconnaissance man moi, instruire ba def projet de décision pour que ministre bi euh, reconnaître leen. Hmm. ak ay syndicats yu bëri nekk nekkoon naa au niveau de la Dagat ministère de l'intérieur donc que le hmm. parti politique est un peu ni ñuy fonctionner gi demee mais dañoo nekk ci dëkk bu tudd Sénégal dëkk bu gis pétrole. de bu gaz dëkk bu nekk ci sous-région bu yëngatu dëkk boo xam ne depuis un certain temps sunu pouvoir politique yi duñ ko wax. sunu mm-hmm. sécurité bi duñ ko wax. Mm-hmm. mais ñu ngi jànkuwanteeg yenn saa yi ay situation yoo xam ne dañ koy gérer en toute discrétion. Mm-hmm. pour préserver Sénégal si pénétration yenn force obscure yoo xam ne xam nañ leen ci sous-région beeg yu demee noonu. donc si dëkk bu mel noonu nag. da ngay lépp lu laal affaire xaalis. dañ koy contrôler baax gis nga sunu gox goxaat jëm si parti sax xaaral ma même sunu gox goxaat yi laa wax de sunu hmm. gox goxaat yi hmm. même ñoom pour ñu dem lebi xaalis wala pour ñu ute xaalis état bi daf koy contrôler bu baax parce que bëgguñu hmm. n'importe quel xaalis di dugg si sunu dëkk parti politique yi également c'est la même chose on ne peut pas permettre ku nekk nga dem jële ji xaalis fu nekk indi ko si réew mi

maanaam bàyyi leen ci xel ne xaalis waru jóge fii warul jóge fi warul jóge fii léegi nag hmm. bàyyi leen nag seen responsabilité bu ëllëgee kenn du ne lu naan magam waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko le ministre de l'intérieur naa fekk rappeler li nga xam ne li ci des mooy hmm. actuellement nekkuñ si campagne demuñu élection hmm. demuñu dara sénégalais yi jóge ci situation bu metti yaa ngi dégg responsable politique yu responsable yi ma xam man bu ñu demee si banlieue bi bu ñu demee si mbënd mi bu ñu demee si yenn situation yi li ñuy def mooy dërëm dërëm yi am tuuti moom la ñuy séddoo askan wi jënd ay masque di ko jox nit jënd ay gel di ko jox nit ñi jënd carburant di ko jox sapeur pompier si mbënd mi di leen jàppale mais responsable politique boo xam ne yow pour nga dem mm. euh, Richard Toll loué fa hôtel wala pour nga dem Mbour si campement yi il faut que nga raket Sénégalais yi mm. jël seeni dërëm dërëm si contexte bi man boobu responsable politique vraiment. sa manière de faire xaw na tey sama xel bis si topp nag mooy. Euh, état bi tamit c'est un vraiment responsable ñu bàyyi xel loolu rek. bu ñu respectantee hmm. yaa ngi dégg euh, élection jotatul campagne amul euh, waaw teg Sénégal dañoo am culture teral gan. d'accord teral gan. Hmm. boo dee tournée da ngay def nemmeeku fii ko dëkk boo fi dem bu fekkee nit ñi adopté nañ la. Hmm. ñoy yor sa logement fa ngay loger say militants say responsable bala ngaa ñëw dinañ ko lijjanti. Hmm. la ngay lek dinañ ko lijjanti. ku nekk dina japp indi sa oto. na nga bëgg a wax ne amutoon ben importance bu motiver collecte de fonds bobu directeur amna na lu ko am lu ko motiver. Ah. mais lolu c'est c'est une affaire bop la. donc waruñ si woon dugal Sénégal waruñ ci won duggal askan wi. Ah waruñ ko won def. te parti politique bi Sénégal lepp la. non c'est parti politique non parti politique du Sénégal parti politique c'est une association privée. association privée boobu nag boo amee ay problème interne xam nga la réalité c' est quoi c' est que Ousmane Sonko xam nga politique dafa metti surtout opposition. Mhm. dafa métti de pour nga gérer ko non amatul moyen. Ah beneen bi ci topp révélation ngay def non Ousmane Sonko. amee moyen fan la koy jëlee liggéeyul depuis 2016. amul cabinet cabinet cabinet bi da ban marché la <laughs> la gagné. fan foo foo dem fekk fa cabinet bi cabinet bi amul réalité. Euh, première chose deuxième chose. Hmm. moi ni ligué ci biir Pastef di am commencé di di hmm. Sénégal ñu xam li qui paye commande. Hmm. commencé di dire, bu ñu def dara commencé génn yenn une di génn plus que Ousmane Sonko commencé réclamer euh, donc problème interne gérer Sénégal. si situation yoo xam ne mën nañ ko rëcc parce que lii. bu ko parti politique yëpp defee. comme contrôle bi naka contrôle moo ko njëkkee. contrôle bi naka la jàpp nañ ne APR moo ko njëkkee. nan la ko njëkkee. APR. non APR président Macky Sall li mu wax leer na nekk si diaspora bi. non li mu collecté le fond président ñu koy may li mu wax leer na mooy li ma leen wax sànq. nee naa la Sénégal dëkku teraanga la man yow soo ma gane si woon buur tàngal doo ko fa jënd nga loolu. mais c'est différent xaar non loolu la président Macky Sall. Macky Sall def na quand même directeur. président bi mu demee maatam si ay mbokkam. Hmm. ñoom ñoo jël en charge lépp yaa ngi dégg. Hmm. ñoom ñoo def lii ñoom ñoo tamit du ay mais bii da ngaa toog da toog da ngaa toog def sa benn campagne. waaw mais a senti nécessité bu woote fundraising may lay ñu xaalis dafa sentir nécessité may lay waaw mooy nécessité mooy li mooy boo amatul mooy politique. si sa biir parti ñeneen ñooy financé ñooñu commencé di am ay kii parce que foofu léegi xam nga day am ay euh, waaw Sénégal moo demee noonu. c'est-à-dire ku ku ëmb sa sànqal rek ëmb sa sutura donc yooyu la mais président Macky Sall li mu def. noonu mooy da ngay dem si dëkk bi dama leen di nemmee ko si. Hmm. boo demee ñooñu ko am gan di nga yokk dépense. ko am gën tëraan yi loolu moo am Sénégal loolu moom si suñu culture yi. d'accord mais damay damay dajale. Hmm. Eh, may leen ma xam surtout contexte bi mu ko defee moo moo doy waar contexte bi hmm. yow boo dee dem seen seen quartier. yaa ngi dégg yaa ngi xalaat leneen lu dul. Hmm. dem jël seen weccet bi ñu yor yaa ngi xalaat masque yoo réservé. pour jox leen. yaa ngi xalaat. participer si nangam nangam ñi nga xam ne seen liggéey soo waxee noo leen di jàppalee. boo demee yenn quartier fekk fa ndox. di sappoor pompier bi di deewoo. yaa ngi xalaat yow quelques litres essence yoo ko mën a jàppalee. loolu actuellement. Mm. tous les responsables même ñi politiqueul ku ci dem ci sa dëkk wala ngay dem sa quartier. loolu moo nekk sa préoccupation. mais ci contexte boobu nga ne. Mm. da ngay dajale dërëm dërëmu jàmb nit ñi. Mm. c'est-à-dire esprit boobu ba pare Pastef dañoo war a. mooy du Pastef ak xaalis